Euh, centre de traitement yi mooy centre yi nga xam ne fi lañ doon fajee coronavirus mooy ña fa nekkoon di médecin doon faj ñi nga xam ne ñoo doon dawal ambulance yi ñi doon balee maanaam ñooñu nga xam ne tey bi ñëpp tiitee ñëpp ragal ñooñu ñoo taxaw risqué jàmmaarloo ak ñi amee coronavirus sacrifier seen bopp ñooñu ñoo mer bu futt jamono ji li ko waral mooy ñoo ñu doon liggéey ci centre de traitement yi état bu Sénégal njiitu réew mi di président Macky Sall moo leen waxoon na leen yéen liggéey bi ngeen di def ak risque yi ngeen di jël yayoo nañu jox leen ay prime de motivation cent cinquante mille chaque fin de mois biñ ko commencé dañ ko fa ne mujj na ñukk bàyyi. léegi nag ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ci centre de traitement yi état bu Sénégal da leen a ameel ay arrière yu baree baree baree bari fayu ñu leen seeni prime de motivation njiitu réew bi nag moo leen ko waxoon te dama jàpp ne njiitum réew war naa mën a fonk kàddoom te njiitu réew mi la mu wax ministre de la santé waru koo mën a teggi kenn waru ko mën a teggi ci réew mi léegi nag ñooñu nekkoon ci centre de traitement yi yayoo nañ considération yayoo nañu ay prime de motivation léegi nag ñoom dañoo def conférence de presse damaa bëgg ñëw ma tegal leen conférence de presse bi euh, ngeen dégg ñoom seen naqar ndax ñoom jàpp nañu ne lu ëpp tuuru te nag Abdoulaye Diouf Sarr mii nga xam ne mooy seen patron di wër ci mbeddi ndakaaru yi di seeti ay maire yuy jaay caaf jàpp naa ne am na lu ko doy sëkk li ko doy sëkk mooy ñi nga xam ne dañoo yor ay njaboot ñi nga xam ne dañoo jël ay risque nekkoon ci centre de traitement yi coronavirus bi ñooñu Ablaye juf saar dafa war a wax si ñoom ñu jox leen seen xaalis Ablaye Diouf Sarr munta def lenn lu ëpp solo ñii nga xam ne lu ne daj nañ ko ngir askan wi ñu war leen a jox seeni prime de motivation te joxuñu leen ko Ablaye Diouf saar ma ngi dem ci maire yi di dem di saaf gerte ak a naan ataaya am na sañ-sañ dox mbokk waaye nag bala nga nay naam ne bala nga ne naam nefa ab lay Diouf Sarr il faut mu dellu siwaat xelam xam ne lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaramu askanu senegaal ci ay loxoom la nekk waaye soo xoolee aw doxalinam dafa mel ni lépp subaama ngoonam ak guddeeg bëccëgam yépp ci mairie dakaar la ko teg te nag askan bi nañu yeewu am na ñoo xam ne bu ñu bëggee falu nu ne danañ ko def waaye buñ faloo ba pare buñ la rombee ay 4x4 lañ lay romb di dawi xël ak vitre teintée mën nañu laa fekk ngay jaay caaf mën nañu laa fekk sa garage mécanicien bëgg bëgg falo di la neexal waaye bis bu ñu faloo foofu ñu la fekkoon sax mën nañ la faa jële jamono jii nag jamonoy pre campagne la ku ne am na sañ-sañ dem seeti askan bi seen kër yi ak ci gaaram place yi waaye dafa am ñenn ñoo xam ne saa su Sénégal yi nekkee si jafe-jafe ñoo ngi ci seen wet ñu teewlu kàddu yi ñooñu nga xam ne ñoo nekkoon ci centre de traitement yi te laaj seen prime de motivation comme ni ñu ko waxee sànq ñi nga xam ne ñoom ñoo toog fii tey mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy agent de santé et bu ma waxee agent de santé mooy brancardier yi mooy ñi nga xam ne ñooy yóbbu malade yi ci service yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bale chambre malade yi ñoom ñooy faxtax hôpital yi di set mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy transférer malade yi mooy ambulancier yi mooy infirmier yi mooy sage-femme yi mooy technicien supérieur yi mooy médecin yi mooy même professeurs yi service yi donc ñun dafa am benn situation boo xam ne dafa xew mooy président de la république dafa génn télé ñëpp di ko seetaan mu ne képp koo xam ne dafay liggéey ci covid 19 weer wu dee bu jot war nañ la fay 150 000 francs boo xam ne dañ la koy motiver pour sacrifice yi nga xam ne yaa ngi koy def donc bi nga xamee ne Covid bi tàmbale na mooy première vague bi motivation yooyu ñu ngi ko daan fay waaye dañu seetlu ne bi ñu demee ba ci deuxième vague bi fin deuxième vague bi ba troisième vague surtout bi ñu yegsee ci mois de d' avril pour certains motivation yooyu dañoo xëy xëy kenn fayatu mu nekk situation boo xam ne ñun comprendre ñu que non seulement fayuñu ñu mais amuñu benn yoon boo xam ne taxaw nañ ak nga xam ne ñoom lañ war a yoreel xaalis boobu ñu expliquer leen raison yi tax fayuñu gis ne situation boobu manque de respect la manque de respect la ndax dafa am ay sacrifices yoo xam ne dañ ko def te yombul mooy bi nga xamee ne peuple sénégalais bi yépp jaaxle nañ bi nga xamee ne même ay agents de santé comme ñun jaaxle nañ ragal nañu dem au chevet des malades ñun ñoo sacrifié am conscience patriotique dem ne dañuy xeex quitte à ce ñu bàyyi fa suñu bakkan waaye dinañ fexe ba population bi jàngoro bi nga xam ne moo leen ñëwal dalal ñu biir ministère xamal ñu ne ñu motivation yi li taxoon ñu arrêté mooy xaalis bi nga xam ne moom lañ ko doon feyee xaalis boobu moo manqué moom lañ amatul la santé l' ensemble des mois yi nga xam ne moom waaye ñu gis ne depuis bi ñu waxee loolu ba léegi tey la mot weer amul benn somme boo xam ne versé na te li gën a doy waar mooy hôpital yi ñu leen yoreel boo xoolee dalal jàmm huit mois lañ leen yore boo jëlee hôpital bu mel ni Samy douze mois maanaam année entière fay ñu leen boo jëlee mois léegi yow ñooñu nga yoral leen ay huit ak cinq mois nga ne leen deux mois nga leen mën a fay après le reste bu ñu defee buñ buñ bu ñu voté budget 2022 leen fay li des ñuy laaj ministère de la santé ñi nga xam ne seen contrat yi dañuy jeex au 31 décembre 2021 nan la ñuy toogee seen kër di ñëw di demander ministère alors qu'ils ne sont plus agents de santé seen xaalis boo xam ne ñoom ñoo ko liggéeyoon ca 2021 ñu wax ne que ci ñun am na ñoo xam ne dañu décédé am na ci ñun ñoo xam ne dañoo contacter ñu def am nañ ay séquelles am na ci ñu perte seen yaay ak seen pap am na ci ñu porte seen rak seen i jabar am na ci ñu mënul dem seen dëju yaay seen dëju pap tey Sénégal kër goo dugg am na au moins benn nit boo xam wala mu nekk sa mbokk boo xam ne perte nga ko ci Covid ñuy wax ne ñooñu amul lenn lu ñu leen di fayee tey gouvernement Sénégal lu dul toog di leen yoreel xaalis tey comme ni ñu ko waxee sànq moment bii dañu waroon a toog président de la république après ñu leen di yoreel xaalis boo xam ne c'est des miettes ay miettes la parce que ñoom ñu ngi maye ci biti gouvernement Sénégal bi xaalis boo xam ne ci lu ñàkk fayda lañ koy maye ñun nag dañuy wax gouvernement Sénégal bi que li ñuy wax nii ñaanuñu ko dañu liggéey liggéey bu métti képp ku mës a am Covid ñëw hôpital mën na seede ne guddi ba à partir de 16 heures ba 6 heures du matin amul benn agent de santé buy fermé bëtam te def nañu ko ñaari at parce que chaque fois ñu ngi au chevet des malades loolu population leen ciy jël en témoin ku ne mën ñu def raar bi ñu raar jafe ñu am yëpp mënoon a am loo xam ne dañ koy taxawoo tey seen waa kër yi won ne sacrifice yi ñu def yëpp bariwul waaye nag lii lañ ci jëlee ñuy toog di ñu yoreel xaalis ñuy wax ne loolu irresponsabilité bu extraordinaire donc ñuy lancer appel président la république pour wax ko ne motivation yi ñun ñoo ko moom ko ko motivation yi ñu moom nañu ko fay te bu ñu koy fay bëgguñu mu def ko de façon graduelle nañu restituer intégralité somme y valeurs qui sont beaucoup plus dangereuses te loolu xaaruñu ci ragaluñu jàkkaarloowaat ak presse wax leen exactement lan mooy xew ci biir hôpitaux yi donc waxoon nañ ko ñu ngi koy waxaat gouvernement Sénégal nañ def preuve de responsabilité nañ fay nit ñi seen xaalis nañ xool ci ñi nga xam ne ñu dañoo décédé Tchad bii nga xam ne moom mooñ moom la ñu dendal gouvernement tchadien bi dafa rémunéré képp koo xam ne dafa décédé ci Covid jox na la un million agent de santé yi décédé ci Covid bi Sénégal koo xam ne bépp agent de santé au Tchad boo xam ne contacté na Covid état wu Tchad fi gën a tuuti lim Covid ma au moins mu ci trois amul benn yoon boo xam ne nit mës nañu woo mastañuk su gouvernement Sénégal tey ñu ngi bëggoon a tenir conférence de presse au niveau de l'INDSS mais ay intimidation moom moo tax ñu ñëw fii tey suñu camarade frappe ñaan leen pour def fii nii kii ci ay agent yoo xam ne état wu Sénégal la ñuy liggéey ci ay agent yoo xam ne seen tort mooy def glorieusement leur benn service boo xam ne moom lañ ñi ngi wax sénégalais yi ñu ngi koy wax moom que ministère am mënuñu fay sax ay agent yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey fa ñu toll tey donc nañu ressaisir nañu fay nit ñi seen motivation te arrêter ces campagnes d' intimidation lenn la ñu ci ñun mooy dàquñu suñuy bërëbërëbu liggéeyukaay ñu ngi leen di xamal ne nag suñu xeex dàquñu ci privilège boobu ñu am moo ci gën a ndaw et puis fu ñu mën ci dem ëllëg bu fa injustice amee incha allah dinañu woote presse te dinañ ko wax santé du caaxaan nañu bàyyi santé bi ñuy fooye nañu fay intégralité somme yi waxuñu encore une fois paiement graduel nañu fay intégralité somme yi et ce dans